maa ngi nuyu mbokki jullit yëpp rawatina mbokki murit yi di nuyu njabootu sëriñ Baara gi ñu fekk fii tey ñoom ñëpp ñu dajaloo fi muy lu neex loo xam ne ku ne bëgg nga sa njaboot di doxee noonu sëñ Baara yàlla may ko ko loolu ñu di ci sant yàlla bu baax ndax boo xoolee ci néeg bii tey ñi fi ne ñëpp ay sëtu sëñ Baara lañu te benn lañ def seen bopp boole seen bopp itam du ñàkk nag ñu di leen ñaax léeg-léeg ndax lu baax ku ca ne kooku rek lañuy ñuy waaye ki ca nekkul sax du jar ñuy wax ak moom loolee nag ñoom ñii toog dañu ko royee ci seen kilifa yooyu seen kilifa yi dañoo booloo woon àndandoo nekk benn sëñ Baara jóge fi teel fee jóge lool bàyyi fi sëñ Muudu Baara waaye ñi fi bàyyi ñëpp doon ñoo xam ni eh, jógaguñ ba sori sëñ Muudu Baara uuf leen boot leen li war ne ci ñoom lépp jamono jam fi nekk lam ca tollool mu def ko muy ak njàmbaar gu wér sëñ Abdou Aziz ñëw jël ko jëf ci jëf jim ci jëf dox ko ci wax ko ci ba bi mu fiy jógee fekk na ñëpp euh, mel nañu nañu war a mel li fi seen wajur di teel teel a jóge bi mu fi jógee itam Cheikh Sidi Moukhtar continué loolee di ko doxal ba yàlla dogal mu doon sëñ Baara di ko doxal ba yàlla def ko mu xëy di sëñ Touba kon loolu ñëpp xam na ni liggéey bu nangu la ci njabootu sëñ Baara sëñ Cheikh Thioro mii nag bokk ci ñooñee fonde woon loolu ci àndandoo boobee ak booloo googee ak nekk benn googee ak yéenante jàmm googee ak jàppandoo ga ak yëkkateendoo ga ndaxte dinaa ci joxe misaal mu gàtt ci sëñ Cheikh Thioro ni ñu àndandoo woon ñoom ñoom ñoom wëjjur yooyu ñoom mag ñooñee man mii tey eh, sëñ sëñ sëñ sëñ sëñ Abdoul Ahad dafa maa jëloon jox ma sëñ Abdou Aziz sëñ Abdou Aziz itam jël xa ku ñuy wax xaari Mbàkke jox ko sëñ Laat yàlla dogal mu jël ñun ñaar yóbbu ñu dëkk bu ñu wax kokki ñu ne fa di jàng di jàng ba yàlla dogal nu am bis bu ñu jóge fa ñëw tuubaa nu randatu jóge fa ñëw Touba bi ñu fa jógee ñëw Touba euh, ñëw ci kër gi fekku nu sëñ Laat ñëw am fu mu tukki sëñ Cheikh Thioro ñëw fekk na fa bi mu ñëwee daal ni ñii ñum doon. ñu dem di ko nuyu mu ne kii kum doon ñu ko kii de Cheikh Baara la tudd sëñ laat euh, mooy waajuram sëñ Baara la ko tudde mu ne kii ci des kum doon ñu ko kii de Xaadim Mbàkke la tudd sëñ Abdou Aziz moo ko jur waaye euh, sëñ laat la ko jox. mu ne fu fu fu ngeen di jàng ñun ko kokki de lañ doon jàng mu daal di laaj ñun taxawaloon ñun luñ fi wut mu ne ko ñoom de dañoo randutu ñoo waaye dañoo ñëw fekkuñu fi sañ laat mu daal di ne ana seen saak ñu daal dem génneel ñu suñu wëlis mu tag na ci otaam yóbbu nu Masar Diop bi sëñ laat ñëwee yóbbu nu Masar Diop jox ñu ko ñu wax sañ sëñ la mu denu jàngal bi sëñ laat dellusee ci kër gi bi mu laa bi ñu ko waxee ni ko Cheikh Baar ak Xaadim di jóge woon nañ kokki ba ñëw fi mu ne anañu nag dañoo dellu wala wala wala lu xew ñu ne ko déedéet sëñ Cheikh Thioro day leen fi jëlee ba fii ma toog di wax ak yow laajut sëñ Cheikh Thioro fu nekk loolee nag moo di àndandoo moo di booloo moo di nekk benn ñi ku fi jóge jëm fenn. su mbokk wuutu la ci sa kër day mel ni kërama bu fa fekkee ngénte dana ko ngénte ko neex la koy tudde te doo ko laaj boo ñëwee leneen lu mu fa fekkee itam dina ko doxee nu mu ko war dox loolu nag dafa supparñu kook suñu jamono ji tey suñu jamono ji tey koo bokkoon lépp bu génnoon nga yendu ci këram wala nga fanaan fa ku fa bopp métti sax boo liggéey ñu ni diwa fi yendoon loolu nag bokkul ak doxinu mag ñooñee kon nag bis bu mel nii buñ ko dee def dañoo war a roy ci ñoom roy ci seen doxin yooyu roy ci lu mel ni lii ma la nettali yéeneente jàmm àndandoo booloo nekk benn di jàppandoo di yëkkateendoo di jëfandoo te xam ne kenn ku nekk ci li yàlla suñu borom dogal ci moom amul kenn ku ko mën a dindi mu neex la munoo koo dindi mu naqare la munoo koo dindi beneen ba ca topp itam ñàkk a nangu dogalu yàlla damaa mas a dégg sëñ Sidi Muxtaar mu ne ñàkk a nangu dogalu yàlla euh, jàngoro la joo xam ne ab docteur amul sa amul amul ordonnance am ab sëriñ amul saafara su koy faj suba gu xëyee te balaa moo tàggook borom da yóbbu cib safaan kon nag nangu dagalu yàlla lu am solo la kon nag may dénkaane di tàmbalee sama bopp ñu àndandoo nekk benn di jàppandoo di yëkkateendoo am kilifa tey te tey déglu kilifa ga tey jëfe ay ay ndigalam ndax kil sunu kilifa yu nu am kat génnuñu alxuraan génnuñu na tey sëñ Tuubaa génnutoon loolu kon nag ñoom ku ñu digal seeni digal war a yomb jëfe di wax itam ñu yërëm taalibe yi te dimbali leen te jàppale leen ndax sëñ laat daf daan wax ni ab taalibe bu la nuyoo sama wajur sëñ laat daf daan wax ne ab taalibe bu la nuyoo bàyyiwul dara ci sa loxo bu ngeen di tàggoo boo amee dara jox ko ko te kat taalibe yi sëñ tubaa la am sëñ tubaa itam taalibe yi la am ñun ñi ñëpp li li ñu am ëpp nañu li ñuy jox ëpp nañu dañ noo boolee gi nit tax ñu dina ñu dina ko jox kon nag war nañu war nañu dimbalee lu ñu man di gërëm ñëpp di sant ñëpp di sant sëñ Bass mi nga xam ne itam wax dëgg yàlla moo fi toogal sëñ Cheikh Thioro te taxawaayam mat sëkk ci lépp tamit nag ci ginnaawu sañ bi ci biir kër gi ci dongo yi ci yoon wi ci lépp wax dëgg yàlla ndax itam euh, jëf moom ki koy jëf te yàlla tax soxlawul ñu di ko wax wa wante nag ñi ko gis te day bokkam te war koo seere it war nañ koo seere kon sëñ Bass ñoo koy sant bu baax ci fànn yëpp ci fànnu njàng ma mi jàngale ci fànnu kër sëñ bi ci fànnu bokk yi ci fànnu yoon wi ci fànnu kër sëñ Baara fànn yooyu yëpp ñoo ngi ko ci sant bu baax bokk yëpp tamit àndandoo nag wax dëgg yàlla di ko sant te di ko ñaanal mu yàgg fee nekk sëñ Cheikh Thioro te lépp lu mu fi liggéey itam yàlla nangu ko di sant njabootu sëñ Baara yëpp asalaamaaleykum wa rahmatullah